gannaaw bi nga xam ne ni njiitu réew ba woon Macky Sall jaarale woon ca pencum ndaw réew mi ab loi d'amnistie buy faxas lépp lu fi jotoon na xew ci diggante weeru février bu atum 2021 jàpp février bu atum 2024 njiital Pastef bi di Ousmane Sonko fas yéenewul benn yoon gëm ci yenn yi nga xam ne ni jotoon dafay xew. xam nga loi d'amnistie loi ordinaire la loi ordinaire la boo xam ne à tout moment député yi nga xam ne ñoom ñoo nekk assemblée nationale mën nañ ci ñëwaat mais bii difficulté bi mu nar am mooy ñoom amuñ li nga xam ne moom mooy majorité parlementaire te bu fekkee amuñu majorité parlementaire dafay difficile à ñu revenir ci li nga xam ne moom mooy moom mooy loi d'amnistie boobu. bu ñu sukkandikoo ci docteur Mbaye Cissé bu ñu dindee bi lépp loi d'amnistie dossier yi yoon mën na koo yëkkatiwaat. loi la boo xam ne à tout moment mën nañ ci revenir bu ko defee dana déclenché waat sur le plan interne mais sur le plan international comme ni nga ko waxee léegi avec la cour pénale internationale adoption bi loi bi sax dafay gën a faciliter li nga xam ne moom mooy déclenchement des poursuites devant la cour pénale internationale parce que statut de Rome dafa wax ni cour pénale mi ngi compétente que lorsque les juridictions euh, internationales dañu défaillante maanaam bu fekkee juridiction interne yi. ñoom mënatuñu ko jugé ñoom ñoom ñoo koy jël en charge. ilimaanu jëwri nii bëgg it leeral li nga xam ne ni moo ñeel réeru Fulbert Sambou ak Didier Badji. parce que xam nga ñoom loi bi dugalu leen parce que dañu leen dañu dañu dañu dañu génn àdduna ci dans des conditions yoo xam ne c'était dans une situation tout à fait normale. yaa ngi dégg donc de manière générale ñoom à tout moment ñoom les familles des victimes mën nañu demander dem porter plainte déposer yi nga xam ne moom mooy devant devant le parquet. bu ñu sukkandikoo ci leader bu Pastef Ousmane Sonko mën naa baale li nga xam ne ni moom lañ ko jot a teg waaye lépp li nga xam ne ni sénégalais yi dund nañ ko ci waxtu googee faw rek yoon mën cee def liggéeyam.